jërëjëf njëf suñ mbokki seetaankat yi man maay Sado la introduce produit bu tudda Cell Power Cell Power ñun waa Electric Global dañ la indi produit bu yomb bu nga di nga mën a jënd cash power ak sa sa téléphone bi ou via sa internet browser ñaari façon moo am via SMS ak via via sa internet bi SMS di nga a jënd cash power from bi ba essence borom bitik jaaykati taabul yi ak yooyu noonu yëpp via internet di ko mën a jënd bàyyi sa sa toog sa biir kër bi ak sa téléphone sa tablette sa oo sa smartphone bi di ko a jënd su yomba bi bàyyi sa visa card oo sa vaaf card bi